mbokk internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf Elmo ñu amati mbégte kontaan ma baax a baax ñu amati mbégte bu baax ma ñëwaat tey biir géejawaay jàkkaarloo ak euh, ñoo xamante ne doomu géejawaay lañu parce que dañu waxtaan ak ñoom tey ci mbirum làmb mais Youssou Ndour tey daa wax ay ñaari pont kër su baakee dafa taxaw yor ay lëmmatiifu làmb ji ay lëmmatiifu mbër dem ba léegi coow loolu mu ngi am écho ci réew mi. dinaa euh, ñëw sa combat Serigne rek doo ko mais bi nga xamante ne mooy di tegg témbe Mbaye euh, Fall réew mi yëngu na ku lan la mbëri ñaa yor seen doole ñëw di ko exploité wala lan la. waaw ginnaaw ma sant yàlla jërëjëf seen dëkk sant suñu di bëgg ñu jàpp jàppale nag suñu ay combat nuyu suñu waa dëkk waa waa waa jàng naa Roso Dagana Koungheul ak ñi ñuy jàppale di suñu Cheikh maa ngi doon nuyu a baax ak papa Ibrahima ak papa Idi. ak suñu aaralaay Cambérène Yoff maa ngi koy nuyu bu baax a a baax lool si Mamran di bëggee ñëpp di nuyu ak Rasulullah bi nuyu tam nuyu tamit sama gaay yi di ci yeneen i milliers mu ci biir làmb jiitalu leen. non man moom lu may wax à chaque fois laa rek. moom yooyu mu sori te du ma ci wax. ah lu tax da cee bokk. non. ah tuuma. man seetal sa dënn mais du ragal. <laughs> man la ah. am ñoo xam ne du ma sori ndax du ma dox si caaxaan du ma wax si caaxaan. dëgg la yaa ngi dégg. Ah. kon lu am am xam ne du ma nekk di détail. waaw di si wax yàlla li ma li ma koy xoolee. dëgg la wala dara. dëgg man sama jëm bopp. man xam naa ne du ma def lu dul yoon. Ah. du dox lu dul yoon waaw. loolu la am suñu mais. loolu mais ku si waxee dafa téye ay vidéo di maraîcher nit ñi ba léegi lamb démb ba léegi mu ngi riir bari ku ne ngi. xamu foo jëm tiitaange am na. waaw course Bakary maa ngi seetaan maa ngi koy dégg naa muy wax ndax moom yàlla def na sax man moom duñu déggante lu bari loolu mu déggante moo sax yoruma numéro waaw mais tamit gars yi ñoo war a xam seen bopp. moytu lu bari. dëgg la dëkk bi moom dëkk moom faa ñuy moytu. waaw ndax dañoo nekk ci biir milieu làmb. milieu Ndakaaru milieu Sénégal saa yi nii loo def ñu wax loo deful ñu wax mais boo deful sax dinañ liggéeyanti ba ne yow si nga bokk ba tuumaal ba tuumaal la si dëgg la waaw mais tamit nañu xoolaat toogaay bi a rafet parce que tey bu ñu bu ñëwee tey ne mbëru làmb ji mbër yi yor naa seen i vidéo mu ne journaliste yi ak reporter yor naa seen i vidéo boog day nekk mbir moom tey xel day ñaaw ku ne di ah est-ce que diw est-ce diw parce que milieu làmb benn heure de moom dara mënu fa takkusaan bi fi dese ñun bu ñu tasee yus bu ñu ñëwee 16 heures lamb 19 heures ku ne dem sa yoon mais mën na ko yooyu yëpp mën a xewee ci lamb te ñun yëguñu waaw non ku si nekk li jënd sa bopp rek seede li am moo am rek. dëgg la ku si nekk li jënd sa bopp li am am na si nag les gars yi def ko si baagi di comprendre gars yi rek xam seen yaram moo tàmmoon waaw loolu la am man daal mënu ma si sori daal ndax xaw ma si dara ndax man daanaka ba mu fekkee sama ruq bi fii. ah jërëjëf fi laay toog fi laay doomu fenn. dëgg la su ma jugee dem entraînement ñëw àndal sama gars yi mhm. dem entraînement ñëwaat toog. bëgg a Dolo bu baax a baax a baax sama papa sama xarit sama waay kooku ba amul say vidéo non non kooku da am loolu a ngaalaam kooku sama waay la kilifa la kilifa la de la am sama gor la moom ma ñaan loon jawab moo tax man la kilifa la la kooku kilifa la caaxaan chaque fois moom lu mu ñuy wax mhm. bu leen dox ci caaxaan bu leen dox ci lu ñàkk fayda dëgg la dafa gaaw a mer nag dafa gaaw a gedd mhm. mais danaan la bul su lu ñaax fay na mhm. bu lay buy ànd yow day bëgg nga avancé dëgg la waaw dëgg la mhm. am na solo Youssou mooy ci li nga xamante mooy lii mais tey ak lamb dynamique yi ñu toll jamono ji ne ci avancement bu am mel ni bu ñu ko commencé dégg lamb ba du sooxal lamb non déggoon ma la lamb ji moom yàlla tegal ci loxo ba noppi waaw ñu gën a ñaan yàlla mu gën a avancé rek dëgg la waaw mais lee lee daal ah man daal lu ma si sori daal. mais ba nga ko yëgee nu mu def. waaw mu ngi ko yëg koo ku ko yëg ku ne. sa xel dina teey. sa xel dina ñaaw sa xel fu mu jëmal yow. ah sa xel fu mu demoon. sama xel fu mu demoon si yow la demoon. ah waaw man de nga woo ma téléphone de woo nga ma téléphone de. moom yow laa doon xalaat moom. dëgg la ah woo nga ma de wax dëgg yàlla. ndax yow sama baay. waaw wax dëgg yàlla woo nga ma téléphone. yow yow laa woo na la abu. baa bokkoo ci man la déedéet. waaw waaw kon baax na. kon jeex na man moom. wax dëgg yàlla moom waaw. ñun ma maa ngi ñëw bokk dëgg ba ne ma amu da maa woo ne ma amu. Mhm. mbir ma dégg ba bokkoo parce que journaliste bu gàtt. waaw man la noo bokkuma ci nga maa ko sama xel dal ma. waaw moo tax sa xel dal. yow laa sekkal loolu ma la waat ma keneen. am ba si droit bu dee si mbëri bu dee si mbëri xelam si kala demoo si mbëri. <laughs> mbëri demul kenn moom. <laughs> dëgg la mbëri demul kenn. mbër moom kenn ko tuumaal dara ci jigéen. non non <laughs> mbër waaw mais mun na ñàkk nag. sportif sportif da ngay entraîné di yëg dindi. dégg nga soxla sa bopp. waaw ah, yëg dindi dafa métti de. waaw ah, yëg dindi dafa métti. cent kilos. ah, ah di marché Kanaara. dëgg la de waaw ah, day métti nag. day métti moom dëgg yàlla day métti moom. munoo war a gars yi li almuri naan da ngay raxas denc ko. da ngay raxas denc. waaw ah, te loolu aussi mën na nekk. waaw wut sa connexion bi nii. waaw. application bu bële di fa dugg. waaw di dimbali sa bopp. mën na ñàkk. mais ñu doon yàlla dimbali a ñu am soxna. dëgg la waaw. mujj nañ ci lu bari. dëgg la waaw teel a casé wu teel a. waaw waaw mais na a ñu am soxna. waaw teel a bëgg. Mhm. dëgg la loolu am na loolu mais lamb ak coow ñoo ànd mais coow li am ci lamb moo la fi ne bare ku xam sa yaa ngi koy woo naa diw li ma ko su baaxee naa li nga lamb mais mais Coutu Bakary information yi muy am fu mu koy amee. Coutu Bakary dama la man Coutu Bakary maa noonu sax. dëgg mais en tout cas ku baax la. Hmm. damay gis ay vidéo yoo xam ne. Hmm. ndax avant boobu. dañu hmm. dégg ne Instagram. yaa ngi dégg si waxtaan bu njëkk. dëgg la mais saa mooy loolu. mais moom damay seeyaan ay vidéo tamit jàmbaar la. dëgg la tamit borom baax la. amul leen loo xam ne man moom. ñoom tey ci moom bu nekkee yor nga numéro wala dara dañ ko laaj. Hmm. maa moom duñ déggante. mais itam gis naa lu muy doxalee mu nekk gaañ bu baax grand bu baax. grand bu cool. ndax am na ay combat yoo xam ne hmm. moom moo taxaw wax ni combat bi dinañ ko subaa ndax ma bëree pare sax génn naa wax si moom. Hmm. waaw kon moom daanaka moom. waaw te day defar làmb nag. ah muy defar làmb. waaw ndax mbëri yëpp xaaju mbëri yëpp damay gis ñuy waxtaan ak moom di déggante ñoom di communiquer at moom. kon moom moo ngi defar làmb nekkul ku yàq làmb. dëgg la mais tey sa sa combat doomu daal. waaw préparé rek. mais lan moo tax jël doomu daal. doomu daal mbër la. Youssou mbër la comme mbëri rek. jël su ma nee ma mënumaa daan doomu daan doomu daal ma bàyyi bëri. lu hmm? Fall laay waxoon Ama. waaw. combat man maa la ñaar. Hmm. bi loolu la ma sama yaay wax. Hmm. soo mënut daan doomu daal bëri. dégg nga ma dégg naa la wér. góor mat góor dañu xam ne góor dëgg ba si góor a koy bay. te sama combat man <laughs> kii doomu daam si xam ne góor dëgg ñëw na. ah. billahi wallahi wa taala seede yàlla waaw. ba bis ko incha allah. mais doomu daam ak ak ak jamono bi làmb boo xoolee eh, ñu bari dañ koo bàyyi xel xaw koo ñu bari ñu ragal xaw a doon ragal doomu daam parce que xaw a tëgg mbëri boo jox avance doomu daangu muy xool ci lu mu duggal wala ci lu mu mais ñu gis ne mu euh, yow nga bokk xale yi bi njëkk a taxaw ne man bàyyi ma fi doomu ma joxe ma bëri ak moom. moom wax ma ko wax na ma mhm. moom nu mu doon parce que day yóoru ñoo xam ne mënul bëree ñoom. dëgg la. moo tax muy toog ay at bu am combat wala muy toog ay 6 mois affaire yooyu. mais comme. man maa ngi leen may calculer sama laaj koo xam ne bëri moom laa mu jaaru dëgg la amateur bëgg ko mhm. yàlla xam nañ boo ma seet si moom beneen dëgg la man damay liggéey te lamb bi tey jii yàlla mhm. ma maanaam ndam seet guy ci toom mhm. daan ko jël bu rëy lamb kenn te moom may bañee ci lamb amul koy bañ ci lamb ah amul kenn koy bañ boobaa kay gars dañ may ragal dootu ñu bëree ci man sax lay la de <laughs> waaye tey <laughs> ñu ragal la dañ may ragal dëgg la incha allah rabbi xam naa kon fa lañ man ñu bari na xeexu doomu daangu koo mun la góose bi. na mooy tamit dóor sama duraat. am na góose. góos duraat kaw man am naa duraat. am nga duraat waaw. ah. bu la génne la góos nag. abu laa mu laa mu dóore la moo ko tas. ah fayu xanaa. ah fayu xanaa. kon na wax. ma dóoree ma dóor moom ma matt ko ma gajjee ma gajj waaw. Balla Gaye ba sama papa. Njaaj bi dina ñëw Njaaj moom Njaaj. xamal ko dinañ ñëw bi. ay Njaaj ngeen yor ak i Thiol. Thiol day ñëw. Balla Gaye yor Thiol. loolu mu da ñàkk. nga yor sam Njaaj. loolu maa ngi nuyu papa Thierno yor Tamaj. loolu maa ngi nuyu papa Mafal. maa ngi nuyu yor Thiaj Njaaj bi. di wax combat bi sa combat la. Njaaj mi. waa Mbam maa ngi lay nuyu bu baax. Ah? waa Soum. maa ngi bëggee ñëpp waa Passy. yow ngaa ñëw na de un mois moo ci des. su nangaan sàmm na bàyyi ma sama. sama xarit muy laay ñomboor. dëgg la. di woo frère am Abou a a baax. waa nangaan sàmm waa nangaan. ma nee nangaan nag damay jël lépp ci loxo Fafa laay ñomboor. dëgg la combat bi amul la jaral. bu baax a baax combat bi jaral ma jaral ma. te proposé nañ fi ay combat yoo xamante ne tey ñun bu bari nee nga ba yooyu rek. non parce que parce que Zom Dang champion la mbër la mhm. dëgg la yaa ngi man su ma nar a jëlee ñeneen te jëlum pët yàgg yàgg may bëre moom Zom Dang waaw waaw dëgg la yàgg yàgg damay bëre moom ñi may wax ñi beneen booy ñi ñëpp damay bëre ñoom waaw su ma yàlla sutaalee ma am Zom Dang damay gën a góorgóorlu rek yokk jom yokk fula yokk fayda dëgg la waaw dëgg la dëgg la mais coow la ma fi léegi loolu ma la loolu sama sëriñ sama papa sama kilifa dama say wax yooyu bi su tontu muy sëñ Cheikh ndeysaan borom Tiwaawan borom Canada nee bu wax si yooyu am na yoo boo si wax bu yàgg da ngay ñàkk feera sama loolu sama nekk si li ma sax seen programme di yooyu man maa ngi toog sama ruq di liggéey lii am ñoom la man xaw ma sax lu am ak lu am mën di am ñoom la rek ñoom la concerné ah, ñoom ñeen la ñoom ñeen la man daal maa ngi sama ruq maa ngi toog waaw jërëjëf Youssou waaw di bëgg waa ñëpp di ziaraat ñëpp di wax gars yi ñun ñëpp préparé ñu ngi jàppale sama gars yi. waaw ñu may ñaanal ñun ñëpp dañoo ñu ngi tamit sama papa maa ngi di bëggee ñëpp di ziar ñëpp. waaw di nuyu Farandaw. Farandaw maa ngi koy nuyu bu baax Mourou Gueye. maa ngi koy nuyu Mbaye Fall bu jàmbaar maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. yaa ngi dégg di maa ngi koy nuyu maa ngi koy bëggee. di bëggee ñëpp sama waa koñ fii mafia si la baraaj bi mhm. ñoom ñëpp maa leen di ziara ak waa Gunaas fi nga xam ne fa laa jógee Gunaas mhm. Gunaas Baxdaad guy jë mhm. ñoom ñëpp maa leen di ziara dem marché Sam Sakho Baye Moussa ñëpp képp ku dëkk Géejawaay jërëjëf Géejawaay daw seeram rek bëggee naa lu baax Ibu Géejawaay Ibu Ibu maa ngi lay bëggee baax di la woo si combat bi incha allah